wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar wa baad fa hada darsun fi bayaani maana laa ilaha illa allah wa muqtadayaatiha mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kon lii benn bind la bu aju ci jéem a dimbalante mbokk yi ci gën a dolli sunu dégg kàddu gi nga xam ne mooy kàddug lislaam kàddug laa ilaha illa allah baat la boo xam ne moodi di aslu diin wa asaasul milla diine ci lañ ko tabax wa hiya allati faraqa allahu biha bayna alkaafiri walmuslim sunu borom tabaraka wa taala ci la tàqalee diggante jullit ak yéefar ci kàddug laa ilaha illa allah wa hiya allati daat ilayha arrusulu jamian wa unzilat min ajliha alkutub mooy kàddu gi nga xam ne moo tax yàlla yónni ay yonent moo tax it mu wàcce ay téere wa xalaqa min ajliha wa xuliqa min ajliha alsaqalaan aljinn wal ins kàddu googu moo tax sun borom tabaraka wa taala bind jinne ak nit ndax mooy fondement jaamu sunu borom tabaraka wa taala suñ bëggee xamle laa ilaha illa allah dañuy wax ne moo di an yactarifa alshaahidu bi lisaanihi wa qalbih bi annahu la macbuda xaqun illa allah azza wa jal ngir nga définir la ilaha illallah ci lu gàtt moo di ne kay seede moo xam nit la walla jinne mu nangoo wax ci làmmiñam fas cib xolam ni amul kenn ku ñuy jaamu jaamu ga di doon dëgg ku dul yàlla bu la neexee nga ne amul ku ñuy jaamu jaamu ga di am njariñ wala ñi koy ñàkk a jaamu ñàkk a jaamu ga di lor ku dul yàlla kon loolu ci gàttal moo di laa ilaha illa allah mooy lan wa hadihi alkalima tatadamanu alnafya walisbat fa tanfi alibadata bixaqin an gayri illahi kainan man kana wa ma kan wa tusbitu alibadata alxaqa lillahi taala kaddu googu nag li muy gàtt gàtt mu di laa ilaha illa nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala dafa gàttal lislaam ci biir kaddu googu dafa làmboo ñaari mbir menn mbir mi day dàq mi ci des di saxal bu waxee laa ilaha dafay dàq géppug jaamu géppug jaamu ñu di ko jaamu ku mu mën a doon walla lu mu mën a doon kooka di ko yeeyoo ku dul sunu borom tabaraka wa taala loolu lay dàq di saxal nag ne jaamu ya jaamu ki ko yeeyoo mooy borom bi tabaraka wa mbir moomu nag doonut loo xam ne dafa nekk benn qadiya lugawiya comme niñ koy waxee rek wax ne lii day naf yu lii day saxal waaye dafa doon mbir moo xam ne mooy mbootum diine mbootum diine dañ koo tabax ci màbb ak tabaxaat mab gépp nguur goo xam ne guy taxaw la gudul goog yàlla ngir taxawal nguurug yàlla kon lislaam noonu la taxawe ci loolu la ndëxëñ laa ilaha illa moo tax borom bi tabaraka wa taala méngoo moom ci boppam chara ak leeral laa ilaha illa ci boppam mooy lan wax naa la la day daq gépp ko nguur di saxal nguurug yàlla kooku bu ñu bokkee xool alquran seetluwaat ko dañuy gis ne am na ay waxiin li ñu tudde ay asalib ay méthode yoo xam ne sun borom tabaraka wa jëfandikoo na ko ci leeral laa ilaha illallah yoo xam ne yu yu wuute la waaye yooyu yëpp li muy joxe mooy wone ne amul genn nguur gu taxaw kenn ku yeyoo ñu di ko jaamu ku dul sun borom tabaraka wa am na benn usloob bu ñuy tuddee nafi ak istisna loolu ci biir waxu arab buñ ko waxee day dàq ba noppi am lum saxal loolu nag bu amee rek ci biir wax yin kooku dafay jagleel lam saxal kooku day wane ne kooka rek mooy yooyu loolu su ma la waxoon ne kenn nekku fi ku dul diw kenn nekku fi ku dul diw sàngam kooku lim lay jox mooy béréb bi may wax moo xam ab néeg la wala kër diw moomu ma tudd turam rek moo fa nekk kon suñ borom tabaraka wa taala jëfandikoo na uslubu an nafi wal istisna ci saxal nguuram ak daq nguuru képp ku dul moom suñ xoolee li wax ne wa min ilahin illa allah wa inna allaha la huwa al azizu al hakim wa min ilahin illa allah amul benn buur boo ne bu allah dafa dàq ba pare dellusiwaat kon boobu aaya dafay sara la ilaha illa allah ba tey waxi sun borom tabaraka wa taala laqad kafara alladina qaalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun waxid ñi nga xam ne dañuy wutal yàlla moroom di wax ñetti yàlla la yàlla nee na ay yéefar lañ weddi nañu yàlla mu ne wa ma min ilahin amul benn buur illa ilahun wahid lu dul benn buur rek moo taxaw kon dàq saxal waxi sun borom tabaraka wa taala qul innama ana mundir wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahar amul benn buur bu dul sunu borom tabaraka wa taala ki nga xam ne mooy kenn ka kenn ku nekkit moo la not kon li ñuy wax nafi wal istisna alquranul karim jëfandikoo na ko ngir leeral laa ilaha illallah mooy lan am na beneen usloob muy beneen waxiin boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala jëfandikoo na ko it ngir leeral la laa ilaha illallah kooko ba tey bokk ci li ñu tuddee asalibul xasr loo xam ne day takk day dajale fi benn béréb ba dara du génn booba mooy waxiinu lan moo di innama arab bu lakke ba ne innama daf lay wax ne kooka rek moom moo fa nekk su la arab waxoon ne innama rajulu fulaan kay góor daal mooy diw kooku day dàq ne amul geneen góor bu dul diw kay jàmbaar ka fii jàmbaar kooku diw daf lay wan ne kooku rek mooy jàmbaar waxiinu innama nag noonu la tëdde waxiin woowu sunu borom jëfandikoo na ko ngir leeral laa ilaha illa muy baatu innama fi mu doon waqanteeg nasaraan yi nee na fa aaminu billahi wa rusuli wala taqulu salaasa intahu xayran lakum innama allahu ilahun waxid subhanahu an yakuna lahu walad muy wax ak nasaraan mu ne leen gëm leen yàlla ak yonentam bu leen weddi benn yonent bu leen ne it yàlla ñett la ne leen nii ngeen gëmee bàyyi leen ko loolu moo gën ci yéen daal di cay teg ne innama allahu ki nga xam ne moom dong mooy yàlla kooku ilahun waxid nee kooku benn buur la subhanahu an yakuna lahu walad sell na moom borom bi tabaraka wa taala soreyoonte naag muy am doom moom suñu borom tabaraka wa taala kon innama la jëfandikoo foofu ngir saxal nguuram am na beneen aaya daf ne qul innama huwa ilahun waxid wa innani bari'un mimma tushrikun qul innama huwa waxal ne moom day moom dong ilahun wahid moom rek mooy benn buur waxaat na ne hada balaagun linnaasi wa liyundaru bih wa liyaclamuu annama huwa ilahun waxid wa liyadakara ulul albaab nee leen alquran mii day jot li la gu mat sëkk boo xam ne day xuppe ngir ñooñu mën a xam ne annama huwa ilahun waxid ngir ñi xam ne yàlla benn yàlla rek la kon jëfandikoo na foofu annama ngir saxal nguuram daq nguurub keneen ku dul moom waaleykum salaam beneen aaya qul innama ana basharun mislukum yuuxa ilay annama ilahukum ilahum wahid muy wax moom borom bi tabaraka wa taala di digal ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko nee leen man day mbindeef laa mu mel ne yéen waaye nag dañu may wax yu la ñu may wax yu la ci jiitu moo di annama ilahukum ilahum wahid seen buur ka leen moom di seen yàlla kooka benn yàlla rek la amul amul moroom ba tey innama ilahukum allahu alladi illa hu wasi'a kulla shay'in ilma xamal ne ki fi nekk tey seen boroom kooka moo di yàlla teg ci ne laa illa huwa amul benn buur boo xam ne bu ñuy jaamu mu koy yeyoo la kudul moom kooku mooy ci nga xam ne xam peeg na lépp kon jël nga foofu waxiin wu jëkk wa mooy dàq ba noppi génn exception ci biir lam dàq dàq ba noppi saxal ñaareel ba moo di jëfandikoo kàddu innama ngir saxal ne suñ borom tabaraka wa taala moom dong moo fi ne ku dul moom mënuloo am nguur guy sax yeyoowoo itam dara ci jaamu weneen waxin woo xam ne bu ko arab jëfandikoo moom it day dàq ba tey mu di li ñuy wax al istifham al inkaari mel ne kuy laaj moom suñu borom tabaraka wa taala te fekk day wax ne nangam amut léeg-léeg ci wax yi dañ lay wax ndax nangam am na fekk li ñu ci jublu mooy nangam amut ndax da ngaa mas a gis kenn kenn kenn ku wax nangam fekk li ñu ci jublu mooy amul kenn ku wax nangam kon sun borom tabaraka wa taala jëfandikoo na boobu uslub ngir saxal nguuram wax na ne man ilahun gayru llah yatikum bi diyaain afala tasmaun man ilahun gayru llah ban buur bu dul yàlla su jekki woon jekki lëndëmal adduna kan moo leen di andil ak leer kooku laaj la boo xam ne lim ci yiblu amul jeneen yàlla joo xam ne moo leen di andil loolu kooku moom la ñuy tudde al istifham al inkaar yi loo xam ne day mel ne day laaj te fekk laajul day dàq day wax ne nangam amut te loolu dafa bari lool ci alquran li may joxe ay misaal la rek waaye boo delloo ci alquran di ko jàngee bu la suñu borom tabaraka wa taala baaxee nga jàng alquran da nga yëg ne lu fees dell lu bari lool la ci biir alquran al karim ba tey waxi suñu borom tabaraka wa taala man ilahun gayru llahi yatikum bi leylin taskunuuna fiih afala tubsirun ana jan yàlla su yàlla téye woon guddi guddi amatul lépp nekk ba bëccëg kan moo leen di mën a indil guddi goo xam ne ci ngeen di mën a ameeg dal dellu ci seeni kër mën a noppalu nag su ngeen liggéeyee ba noppi ana kan la kooku laajut day wax ne su yàlla defoon loolu amut kenn ku mën a indi lii ba tey waxaat na ko moom sun borom tabaraka wa ci waxin woowu mu ne am lahum ilahun gayrullah subhanallahi amma yushrikuun ndax dañoo am jeneen yàlla nag judut yàlla ndax da ngeen am beneen buur bu dut yàlla mu ne ah yàlla sell na sorewante naag ni ñu koy bokkaalee ak ñeneen ñi sun borom tabaraka wa taala sorewante naag loolu kon loolu du laaj dafay wax ne loolu amut boo demee ci suuratu naml ay aaya yu bari yoo xam ne danañ ca ñëw a ilahun ma allah a ilahun ma allah ba mu mat ay yoon yoo xam ne benn bu ne dalay wax yoo xam ne yàlla moo koy jëfe moom rek moo koy jagoo su demee ba ca mujj ga mu laaj la ndax am na jeneen yàlla judut yàlla kooku dalay wax ne amul jeneen yàlla judut yàlla kon loolu ay misaal la ci ay waxiin yu nekk ci biir alquranul karim yoo xam ne sunu boroom tabaraka wa taala jëfandikoo na ko ngir wane ne moom dong moo yor nguur gu sax gi moom dong it moo yeyoo ñi di ko jaamu bañ ko boole ak keneen jëfandikoo na kon uslub annafi wal istisna jëfandikoo uslubu innama jëfandikoo uslubu al istifham al inkaar yi yooyu benn bu ci nekk li muy saxal moo di nguuru sunu borom tabaraka wa rek mooy nguur gi sax waaye geneen gudul moom saxul te keneen ku dul moom yeeyoo lu toll ne dara ci ñu di la jaamu lii lépp lan la ñuy tegtal lan la ñuy jox su fekkee suñ borom tabaraka wa taala indi na kàddug laa ilaha illa allah fas ci lislaam ne ku bëgg a dugg ci diine na wax loolu ngeen nangul ko ne dugg na kon ba noppi wëlbatiku moom suñu borom tabaraka wa di leeral la ilaha illa allah ci biir alquranul karim kon loolu lépp lan la ñuy jox la suñ xoolee yooyu waxin kon daf nuy daal leer naññ ne daf nuy daal di leer naññ ne min azami muqtadiyaati laa ilaha illa allah rafdu kulli uluhiyatin tunsabu ila gayrillah daf nuy jox ne dafa jaadu ci nit ki nga xam ne dafa dugg si ci lislaam ne dafa war a gàntal dafa war a lànk dafa war a bañ gépp loo xam ne luy woote nguur ñi war ko jaamu la lu dul sun borom tabaraka wa taala loolu moo tax jëmmi loolu rek ngir tawxiit leer jëmmi ne ki yeyoo jaamu moom dong mooy yàlla sun borom tabaraka wa taala daf cee jëfandikoo waxiin yu bare bare bari yoo xam ne lépp it ba tey day delsi di sharx di leeral maana la ilaha illa yooyu bokk na ci li sun borom tabaraka wax ci làmmiñu ibrahim alayhi salaam mu ne innani baraaum mimma taabudun illa alladi fatarani innani baraaum mimma taabudun man day set naa wecc ci li ngeen di jaamu ñi muy wax luñ doon jaamu ay bant lañ sampoon ay xiram lañ tabaxoon yor tudde ko seeni yàlla lépp lu ñuy def ci xeeti jaamu yàlla ñu koy defal yooya bi ibrahim dikkee suñu borom tabaraka wa taala yónni ko mu tàmbalee xàmmee xam ne ku dul yàlla wari sulaa jaamu lan la leen wax innani baraa'um mimma taabudun man day set naa wecc ci li ngeen di set naa wecc ci li ngeen di jaamu illa alladi fatarani kon set naa wecc ci li ngeen di jaamu mooy tolloog laa ilaha illa alladi fatarani mooy tolloog illa allah set naa ci li ngeen di jaamu wecc ba mu des nag ki nga xam ne moo ma bind ki nga xam ne moo ma bind kooku moo yeyoo moo yeyoo ma jaamu ko kooku rek moo moo yeyoo ma jaamu ko ba tey waxaat na قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده muy aay ju leer naññi joo xam ne saraa la explication la leeral la ci laa ilaha illallah daf ne day Ibrahim ak ñem àndaloon ak ñi ñëw gannaawam muy mboolem yonent yi yàlla nee na royukaay bu rafet lañ ci yéen loola nu mu demee mu ne ñooña dañoo waxoon seenu nit ne leen nun day set nan wecc wecc ci li ngeen di jaamu weddi nan li ngeen di jaamu teyit ak noonoo aku mbañeel dong mooy dox suñ diggante ba faw li feeg du da ngeen a jaamu yàlla dong lu dul da a gëm yàlla dong kon kooku taxawaayu jullit la boo xam ne taxawaay bu leer naññi la ci digganteem a koo xam ne amul tawxid digganteem a koo xam ne jaamuwul boroomam tabaraka wa taala loolu rek moo fiy dox nga xoolaat borom bi tabaraka mu ne fa man yakfur bi taaxooti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwati lwusqa faw da ngay mab faw da ngay weddi door a gëm door a tabax nee na képp koo xam ne weddi na lépp loo xam ne dañ koy jaamu te loola yeyoowut jaamu boole ko nag ak gëm yàlla su weddee lépp lu ñuy jaamu te yeyoowul jaamu ba noppi wëlbati ko saxal jaamu yàlla sun borom tabaraka wa taala nee na kooku mooy ki jàpp ca buum gu dëgër ga faqad istamsaka bil urwati al wusqa lan fisaama laha wallahu samin alim loolu mooy buum gi nga xam ne du dagg mukk buum gi nga xam ne du dagg mukk loolu moo tax li mu tuddee al urwatul wusqa muy buum gu dëgër gi moom la tudde feneen xablullaahi buy wax ne waxtasimu bi xablillahi jamian lim ci jublu mooy ngeen jàpp ci buumug yàlla gu dëgër gi dul dagg googu mooy gan mooy buumug tawxid te dana ñëw ci kanam ne buumug tawxid googu dëgëraay bi tax na moom dong nag moo mën a boole jullit yi waaye lu dul loolu duñ mën a ànd ba tey buñ xoolee ñaari aay yu nuroo lool dalika bi anna allaha huwa alxaq wa anna ma yadcuuna min dunihi huwa albaatil ci suratu alxajj waxaat ne dalika bi anna allaha huwa alxaq wa anna ma yadcuuna min dunihi albaatil ci suratu luqman ñaari aay yoo xam ne dañoo nuroo lool wax ne lii day mooy tegtale ne yàlla dong mooy dëgg la ñuy jaamu nag di ko woo suba ak ngoon ak di ko jaamu te fekk du yàlla nee na loola mooy neen loola moo tekkiwul dara moo dul dara wax ko ñaari yoon ci ñaari aaya yoo xam ne yu jege la am ak takkale gu sew goo xam ne moo dox seen diggante e, jarut nu ci xóot di ci sori ci biir waxin woowu nga xam ne alquranul karim dafa ñëw di sara la ilaha illallah di ko leeral di wane ne mooy nga màbb gépp nguur gépp loo xam ne luy woote ku ko jaamu la nga bañ ko ngir mën a jaamu yàlla dong loolu day dëppoog waxi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi muy waxee ne man qaala laa ilaha illa allah wa kafara bima yucbadu min duni illah xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu ala allahi azza wa jal rawahu muslim yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy wax mu ne képp koo xam ne wax nga laa ilaha illa allah boole ko nag ak weddi wa kafara la wax weddi lépp loo xam ne dañ koy jaamu te du yàlla nee na kooku dey xaraam na ci yéen deretam ah, ak alalam la ca des nag digganteem ak yàlla la yéen sañatu leen ko euh, dal ci kawam sañatu leen ko jàppe ab yéefar su fekkee ne xas na wax laa ilaha illa allah boole ko nag ak weddi lépp loo xam ne lu ñuy jaamu lu dul yàlla la kon kooku deretam ak alalam lewatul ci yéen xam yéefar bi deretam ak alalam dafa lew ci jullit bi su fekkee ne dañoo nekk fu ñuy tudde daaru xarb xeexa a dox diggante jullit ak yéefar su loolu amee ñu tudde leen daaru xarb muy këru guerre noonu la leen di tudde diggante jullit yi ak yéefar yi su boobaa léppi yéefar day lew ci bépp jullit li feeg nag waxut laa ilaha illallah su ko xasee wax su boobaa day daal di dagan ci moom su fekkee nag dañoo dem ba diggante yéefar ak jullit am luñ si ñeente loo xam ne ak jàmmoo gu dox seen diggante la bu boobaa lislaam day ñoŋal ci ak maandu teem même dereti yéefar ak alalam kon alquranul karim dañuy daal di yëg ne suñ borom tabaraka wa taala yëmut ci ne nit ñi nañ wax laa ilaha illallah mu jeex waaye dafa wax laa ilaha illallah ba noppi leeralal boppam laa ilaha illallah moom mooy lan laa ilaha illallah nag gannaaw bu ko jullit bi déggee ba àggal dafa am lu ñuy tudd ay muqtadayaat faaw ki wax laa ilaha illallah am na engagement bu mu jël dafa am lu mu warlu loo xam ne daf koo teg bopp daf koo tegoo parce que yéene def su fekke yooyu tegoowu ko laa ilaha illallah am du mën a wér maanaam pour laa ilaha illallah mën a wér day am charte yu mu àndal yoo xam ne day dëppoog moom charte yooyu borom xam-xam yi dañ koy faral di tudde ay charte léeg-léeg ñenn ñu tudde ko ay muqtadayaat waaye lu mën a xew am na yu laa ilaha illa allah war a àndal yoo xam ne mënut a ñàkk ngir sa laa ilaha illa allah bokk na ci yooyu al ilmu bi maanaha faw laa ilaha illa allah nga xam mooy lan ci li weesu xam ngeen ko léeg-léeg da ngay gis kuy dugg ci lislaam ku bees ñëw ne dafa bëgg dugg ci lislaam ñi ne dañ koy tuubal ne ko waxal la ilaha illa allah mu daal di wax laa ilaha illa allah ñu daal di def yeneen formalité yi ci des daal di koy bàyyi suñ amee yenn yuñ koy wax daal ne ko booy julli nii ngay def booy woor nii ngay def booy waaye xalaat ci ne laa ilaha ko wax mooy lan loolu duñ ci xalaat lu gën a bari kooku njuumte bu mag a mag la ndax jëmmi laa ilaha illa du ak léemaay goo xam ne su ko nit ki waxee day daal di génn ci ab secret day daal di génne ci kéefar daal di dugg ci lislaam ngir sekkare boo xam ne dafay daal di xam lislaam mbir mi day daal di leer ci boppam déedéet su ko waxee deretam ñog na ba yow sañatoo ko dal ci kawam waaye na duggagul ci tawxid ndax li mu wax xamut lu mu doon kon yow da ko war a leeral li mu wax lu mu doon moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne condition bi ci jiitu moo di nga xam laa ilaha illallah moomu lu muy firi moo tax borom bi tabaraka wa taala di wax ne faalam annahu laa ilaha illa allah faalam xamal ne laa ilaha illa allah xamal ne amul benn buur boo xam ne bu ñuy jaamu la bu nu suum borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ne man maata wa huwa yaalamu annahu laa ilaha illa allahu daxala aljanna rawahu muslim képp koo xam ne faatu na nee na te fekk xam na laa ilaha illa allah mooy lan xam ne maanaa mi nee na kooku dana dugg àjjana maanaam kooku benn condition la ci condition yi tax nit ki dugg àjjana ci laa ilaha illallah xam gi doonut loo xam ne lu mën a ñàkk la soo ko doon wax di ko baamtu lu bare bare bare te li ngay wax xamoo lu mu doon it wax ja du la jariñ dara ci sa dund du tax nga xam li ngay def lu mu doon du tax sa dund soppi soppiku te bu leen fàtte ne laa ilaha illallah ci boppam day soppi ak dund day fekk jullit day fekk doomu aadama ji ci leneen su xasee wax laa ilaha illallah mu jëlee ko ci indi ko ci biir laa ilaha illallah xam ngeen ne yonente bi alayhi salatu wasalaam bu toogee ci màkka diir bu yàgg di woo bindeef yi fa nekk ngir ñu dugg ci lislaam di leen waxloo laa ilaha illallah ñu di ko bañ bam jaral leen lu nekk ba bis biñ ubbee màkka am ci ñoo xam ne bañ a wax laa ilaha illallah jaral na leen ñu daal di war seeni gëléem gàddaay daw ku mel ne Ikrima ibnu Abi Jahl bis boobu dafa daw ba àgg ca géej ga ngir xam ne jullit yi dikk nañ Màkka te not nañ leen te ku leen wattuwut da nga wax laa ilaha illallah loolu moo ko doon tax muy daw kon ñooñu xam nañ ne laa ilaha illallah du lu ñuy wax rek ci làmmiñ mu jeex su fekkoon ne loolu la kon mën nañoo toog bu ñëwee ñu ne laa ilaha illallah mu jeex ñu continué waat di dund lañ doon dund waaye laa ilaha illallah day soppi ak dund su ko jullit bi xasee wax su ko nit ki xasee wax am na lu réeréy lu sosu ci ak dundam loo xam ne daf ko war a yëg ci bépp plan boo xam ne mi ngi koy dund war naa xam ne am nag soppiku gu fa dox ci wàllu pas-pasam ci wàllu jaamu yàllaam ci wàllu jikkoom li muy dund na doon tawxid ak wéetal sunu borom tabaraka wa kon moo tax xam gi doonu lu mën a ñàkk beneen charte bi mooy li ñu tudde as sidq faaw mu dëggu sidq nag mooy mutabaqatul xabari wal muxbar anhu ci ne laa ilaha illallah dafa xabaar nit ñi nee na leen man dey nangu naa ne amul benn buur bu ñuy jaamu mu yeyoo jaamu ku dul yàlla mu des nag ndax lii mu wax dëppoo na ak li muy dund moom wala déet kon dëggu gi munta ñàkk su ko waxoon ba àggal kat guddeeg bëccëg mi ngi ci bokkaale yàlla guddeeg bëccëg mi ngi xeex lislaam mi ngi xeex jullit yi mi ngi xeex ak yàlla sax laay wax su fekkoon ne wax na loolu kon kooku kaddu la mu wax ci làmmiñam waaye doon a gut loo xam ne lu àgg ci ay cëram la bu leen fàtte ne munaafiquun yi nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala jagleel na leen aw saar waxoon nañ laa ilaha illa allah dañ ko doon wax di wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko yaay yonentub yàlla ànd ak loolu ña nga ca fa gën a metti ci sawara muy fa féete suuf inna almunafiqina fi darki al min an naar la ko suñu borom waxe naafiq yi ña nga ca ndéttul sawara fa gën a tàng te ñooñu gëmu waxoon nañ ne gëm nañ ne yonent bi mooy yonent bi yàlla dafa ne ida jaaka almunafiquna qaalu nashhadu innaka la rasulullah mu ne ko naafiq yi buñ dikkee de dañ lay wax ne nun de seede nan ne yaay yonentub yàlla wallahu yaalamu innaka la rasulu yàlla xam na ne yaa dib yonentam xanaa kon wax nañ dëgg mu ne wallahu yashhadu inna almunafiqina la kadibun ànd ak loolu yàlla xam na ne naafiq dañuy fen ah man fason fenati ginnaaw ñoom nee nañ yaay yonentub yàlla te yàlla xam na ne yaay yonentub yàlla naka lañ fe nekkoon seen ñàkk wax dëgg fi mu tegu du ci liñ wax ci seenu làmmiñ liñ wax ci seenu làmmiñ dëgg la waaye dafa dëppoo wut ak li nekk ci seen xol kon dañuy wax ci seeni làmmiñ loo xam ne nekkul ci seeni xol moo tax suñu borom tabaraka wa taala ne waxuñu dëgg kon dëggu gi mënta ñàkk laa ilaha illallah ku ko xas wax sa mbir dafa war a soppi ko su fekkee ne dëggu nga sa lépp dafa war a soppiku ñi la xamoon dañoo war a xëy xëy ne diw sàngam day moom keneen la léegi ñam doon àndal sax su fekkee ne soppiku moom àndatul ak ñoom nam doon waxe waxeetu ko nam doon jëflanteeg nit ñi jëflanteetul noonu digganteem ak boroomam saabu waxtu jaamu yàlla jote day jóg kii soppiku na soxlaalut kenn dara lu lewut kon laa ilaha illallah day soppi dundub doomu aadama kon dëggu gi doon na loo xam ne munta ñàkk moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci benn xadis bu muy wax ak Muaz ibnu Jabal radiallahu taala anhu daf ne ko ma min axadin yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa xaramahu allahu ala annar ne ko day amul kenn koo xam ne dana seede ne amul benn buur bu yeyoo jaamu bu dul yàlla gëm ne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent yàlla la nee na te fekk loolu lu dëggu ci xolam la lu dul yàlla xaraamal ci moom sawara xadis boobu muttafaqun alayhi bi maanaa solo na ko buxaari ak muslim kon dëggu gi doon na loo xam ne lu mënta ñàkk la gannaaw bu dëggu gi jàlleet faw mu sell jaamu yàlla gi yàlla dong day tax day sori ak bokkaale ndax su yàlla taxut rek bokkaale dugg si na borom bi ne wa ma umiru illa li yabudu allaha muxlisina lahu diina xunafa digaluñ leen dara dara dara lu dul ngeen jaamu suñu borom tabaraka wa taala jaamu gu ànd akuk sell digaluñ leen lu dul ngeen jaamu sunu borom tabaraka wa taala jaamu gu ànd ak sell sun di wax ci benn xadis qudsi mu ne ana agna shurakaai an shirk man amila amalan ashraka maci fihi gayri taraktuhu wa shirka nee na ñi ñuy boole ñëpp di jël naan lii yaag diwa ko bokk lii diw ak ko bokk yàlla nee na ñooña maa ci gën a doylu loo ma booleeg keneen rek ma bàyyi laa kooka danaa ko bàyyeek loola bàyyi laa kooka jël nga jaamu yàlla defoo ko ngir yàlla nit ñi lay xool ñoo tax nga di ko def bëgg aw tur moo tax nga di ko def bëgg ñu tagg la moo tax nga di ko def kese yàlla nee na moom loolu génn na ci yaag la nga bëgg yàlla bàyyi na la ak loola loola du la mën a fay su fekkee nit ñi tax nga di ko def nit ñi mënuñu laa fay seen bopp lañ tal te yàlla du la fay kon moom ñi ñuy boole ay mbir yépp moo ci gën a doylu loo ko booleeg keneen la ko boole moom da yàlla dana ko bàyyeeg kooka ba noppi nag yow ci sa bopp yow mi ko boole kooka mu bàyyi laa kooka nag ba xam lu mu la mënal kon du la mënal dara xadisu abu hurayra mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne asaadu nnaasi bi shafaati yowma alqiyama man qaala la ilaha illa allahu xaalisan min qalbi ki gën a texe ci rammug yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bis pénc yowm alqiyaama kooku yonent bi nee na mooy ki wax la ilaha illa allah te fekk lu sell la ci moom lu sell ci xolam la waxu ko ngir ay tappale waxu ko ngir njistal waxu ko ngir mucc ci deret wala waxu ko ngir ñi ne ko laa ilaha illallah ji boo ko waxee nangam ak nangami yoon téeméeri yoon comme niñ koy waxee ci rajo yi boo xëyee sa wërsëg day ubbi ko wala nangam day jaar fii yooyu yépp taxul mu di ko waaye li tax mu wax laa ilaha illa allah moo di lan sellal ko ci xolam boole ko xam maanaa mi ne daf ko war a soppi duutu jaamu kenn ku dul yàlla képp kuy woote pouvoir boo xam ne da wax kaay leen jaamu ma comme mën a doon ñu bàyyi la jublu ci yàlla loolu la la laa ilaha illa allah wala jëriñ xadis boobu buxaari moo ko solo asadu naas naasi bi shafaati yowm alqiyama man qaala laa ilaha illa allah xaalisan min qalbi ki wax laa ilaha illallah ji dafa war a am kóolute ci digganteem ak yàlla dafa war a wóolu yàlla mu yëg ne li mu wax lu dëgër la lu ñor la lu am njariñ loo xam ne amu ci sikki sàkka ci loolu lay mën a wéree waaye kat su fekkee laa ilaha illallah ji suñ ko ko waxalee ba mu xam li muy firi ñor ko lool mu fas ko yéene bu xëyee dara mën na koo xub wala mu déggaat dara mu daal di dellu gannaaw jëfa jeneen jëf ju wóote ak laa ilaha illallah kon kooku laa ilaha illallah am du wér moo tax innama almuminuuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartaabu ñi nga xam ne dañu gëm ñooñu mooy ñan mu ne ñooy ñi gëm yàlla akub yonentam ba noppi boole wuñ ca sikki sàkka liñ gëm dafa dëgër kenn mun leen a tax a dellu gannaaw abu hurayra ba tey mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne ko man laqiita min waraai hada alxaid yashhadu an laa ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu fa bashirhu biljanna abu hurayra yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf koo mas ne ko koo dajeel fii boo génnee koo dajeel ci miir bii ci gannaaw sàkket bii wala ci gannaaw ñag bii ndax ci tool la ko abu hurayra fekkoon koo dajeel ci gannaaw foofu muy wax laa ilaha illa allah te fekk ku ci am kóolu te gu nekk ci xolam la nee na kooku sooy ba nga béel bégal ko ci àjjana kon kóolute gi mënta ñàkk ci riwaayatul buxaari dafa ne yashhadu an la ilaha illa allah gayra shakkin biha riwaaya bu njëkk bi muslim la waaye riwaaya bu buxaari mustayqinan biha qalbu dafa ne gayra shakkin biha koo dajeel muy wax ashhadu an la ilaha illa allah te amu ca sikki sàkka wér na ko cëng ni ko baaraamam yi wére ne laa ilaha illa allah kooku nee na bégal ko ci àjjana kon yeneen charte yi ñuy tudd moo di su yooyu jàllee te yi mooy yi ci gën a dëgër moo di dafa war a nangu dafa war a am alqabool lépp loo xam ne lu ko laa ilaha illallah di digal la rek ci xeeti jaamu yàlla yi xeeti jikko yi xeeti pas-pas yi lépp lu ñëwati te am dalil ci alquran ak sunna moom daf koy nangu du ko jëfe ndax buñ fàtte ne mbir ñëw mu jóge ci alquran ak sunna nga delloo ko bañ koo jëfe loolu melokaanu yéefar yi la ñooñu mooy ñi suñu boroom wax ne innahum kaanu ida qiila lahum la ilaha illa allah yastakbiruun kon ñàkk nangu li muy firi mooy delloo mooy ñi nga xam ne suñ leen waxee laa ilaha illa allah nee leen amul kenn kuñ war a jaamu ku dul suñu borom tabaraka wa taala ñooñu la ñuy tontu mooy dañuy rëy rëylu dañ lay wone ne nun ëpp nañ lii nga nuy woo ndax nun gëm nañ tawxid ji ngeen di wax yéen ay gone ngeen noonu ay mag lan ban ci nekkee yàgg na kon yu mel noonu lu mat a lu mat a bàyyi xel la lu mat a wattu la waxi suñ borom tabaraka wa taala ki ko jottali bu dee gone it jottaliwut waxi gone waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki ko jottali bu dee gone it jottaliwut waxi gone waxi mag la jottali kon jamono yi nga koy déglu bul jàpp ne xale bu ndaw ngay déglu waaye jàppal ne waxi borom bi tabaraka wa taala déglu waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngay déglu su ko defee nag faaw lépp kon loo xam ne laa ilaha illallah digal na ko faaw mu wammatu ca loola womatu gu mat sëkk faaw it nag buy def li laa ilaha illallah digle muy li ci biir lislaam lépp te wéet jamono yu koy def fawwu da koy bëgg faaw xolam sedd ci du yëg ne moom ku ñu yan saakoy suuf muy sakk-sakki mu metti ci moom la waaye day yëg ne dañ koy wammat jëmale ko àjjana kooku day bég daf ko war a bëgg bëgg borom bi tabaraka wa taala bëgg yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam bëgg waa laa ilaha illa muy waa tawxid daf leen di bëgg ngir ñooy ay mbokkam ci yoon wi yoon wi mu jaar bañit nag képp koo xam ne noonub laa ilaha illa képp ku noonu tawxid daf koy bañ ngir bañ gi mu bañ tawxid su boobaa bañut waaje ngir jëmm mooy daf ko bañ ngir li mu bañ tawxid bokk na ci bokk na ci li nga xam ne munu cee ñàkkit itam ci la ilaha illa allah mooy alsabaatu alayha xatta almawt wa adamu lirtidaadi anha wa naqdiha nag sart la bu munta ñàkk mooy laa ilaha illa allah jooju daf sax ba kero ko di dikkal du jàpp ne damay am tawxid ba am ci nangam nangam jàpp ne li ma war a jaamu yàlla fi mu toll war naa doy nag ba kero dee di ñëw ndax kët bokkaale moomu képp koo xam ne si tàbbi nga ci sa tawxid yàqu na kon faaw mu sax ci du def lenn loo xam ne day firi tawxidam xam ngeen ku jàpp ba noppi am na yuy firi am njàppam ku jàpp ba àggal am na yoo xam ne su ko dalee day dem jàppiwaat nekke noonu ki am tawxid am na yoo xam ne su ko dalee dafa war a waxaat laa ilaha illallah dellu tàmbaliwaat yëg ne génn na génn na lislaam kon loolu lu mat a bàyyi xel la faw nag nit ki sax ci ba kero ko dee di dikkal amul fu mu ko yemale moo tax borom bi nee na innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu alayhi aljanna wa mawaahu annaar wa ma lizalimina min ansaar yàlla nee na day ngeen yëg ne képp koo xam ne bokkaale na ak yàlla dara wutal nga yàlla moroom ci lenn wala nga am lenn loo xam yàllaa ko yeeyoo nga jox ko keneen ku dul moom yàlla nee na kooku yàlla xaraamal na ci moom àjjana du ko dugg du fa jaar te nee na fa mu dëkk kon mooy sawara te it amut kenn ku ca man dara kenn mënalu ko dara wa ma li zalimina min ansaar amul ñenn ñu mën a jóg taxaw di ko dimbali ba mën koo génne sawara di ko delloo si àjjana ginnaaw nga xam ne ci bokkaale ci la dund ci la faatu kooku mbiram jeex na sawara lay dëkk ba faw yàlla nañ ci yàlla mosal ndaxte borom bi tabaraka wa taala def na li ko wax jot li na leeral na wax na yoon wi nga xam ne ku ci jaar fii nga jëm yoon wa nga xam ne ku ci jaar fële nga jëm wax na ne wa qaala allahu la tattaxidu ilahayni ithnayni innama huwa ilahun waxid innama huwa ilahun waxid yàlla nee na bu leen jiima wut ñaari yàlla mukk xam leen ne jenn yàlla rek la kon kooku rek mooy yeyoo jaamu wala tad'u maa allahi ilahan axar laa ilaha illa hu bul woo bul jaamu bul wakiirlu ci kenn kudul yàlla ndax kooku nee laa ilaha illa hu kooku rek kay buur moom rek moo yeyoo bépp xeet ci xeeti jaamu yàlla yi fasda bima tu'mar wa a'rid an almushrikin inna kafaynaaka almustahzi'in alladina yajcaluuna ma'a allahi ilahan axar fa sawfa yaclamuun alladina yajcaluuna ma'a allahi ilahan axar fa sawfa yaclamuun nee na ñi nga xam ne ñooy wutal sunu borom tabaraka wa taala moroom fekk yi mu yeyoo moom yàlla ñi di ko jox moroom kañ tudde moroomum yàlla yàlla tëkku na leen tëkku bu metti mu di fa sawfa yaalamuun ñooñu danañ mas xam loolu ñu def mooy lan danañu mas a xam li ñu def ban gravité la am tëkku googu nag foofu da koo lëm waaye leeral na ko ci yeneen aaya am na fu mu ne laa tajcal maa allahi ilahan axar fa taqcuda madmuuman maxzula bul wutal yàlla moroom bul ko wutal beneen yàlla beneen jeneen yàlla nee na loolu boo ko defee day da nekk di kuñ ŋàññi da nekk di kuñ gàcceel kuñ toroxal ba tey leeral na ko feneen fu gën a leer dalika bima awxa ilayka rabbuka min alxikma wala tajcal maa allahi ilahan axar fa tulqa fi jahannama maluuman madxuura mu ne day yonent bi lay waxal lii de la yàlla wàcce ci yow mooy lan mu ne ko bul wutal yàlla moroom soo ko defee kat danañ la sànni ci biir jahannama muy sawaru jahannam nga doon kuñ yedd doon itam koo xam ne ku torox ngay doon subhanallah kon kooku day wone ne mbir la mu garaaw mu di wutal yàlla moroom ci lenn su fekkee ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam la wàcce ci moom alquran ci wax ceeg moom wax ju mel nii kon keneen ku ñëw gannaawam ku mu mën a doon moo xam malaaka nga moo xam jinne nga moo xam nit ku baax nga lañ lay tudde aw wàlli wala ab sëriñ wala lu ñu la mën a tudde kon kooka war naa tiit <coughs> ndax ñoom ñëpp su fekkee ñu baax lañ suñ doonee ñu baax seen royukaay mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee nag sunu royukaay yi boobu moom la yàlla waxal wax ji kon kooku daf ni wan ne bokkaale ci boppam mbir mu rëy la mbir mu grave la moo xam ne mat naa wattandiku ba tey gën na koo leeral fala tad'u ma'a allahi ilahan axara fa takuna min almu'adhabin bul wutal yàlla moroom ndax loolu day tax nga bokk ci ñi ñuy mbugal alladi ja'ala ma'a allahi ilahan fa alqiyaahu fi al'adab alshadid ki nga xam ne dafay wutal yàlla moroom yàlla nee na malaayika yi na ngeen ko sànni ca mbugal ma gën a tar kon mbir a ngoog moo xam ne mu mat a wattandiku mu mat a bàyyi xel la foowu kon wattu bokkaale mënta ñàkk moo tax ci xadisu abi dar mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ne ataani aatin min rabbi fa axbarani aw fa basharani annahu man maata min ummati la yushriku billahi cheyan daxala aljanna yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na jibril daf koo dikkee comme ni mu leere ci beneen riwaaya ne jibril la nee na mu nett li ma bégal ma ne ma saw xeet ku ci faatu ku ci faatu te amul kenn kum doon bokkaaleek yàlla lépp luy nuru bokkaale rek wattandiku na ko <coughs> ba faatuwaale loolu nee na kooka dana dugg àjjana kon charte bu mag la bi nga amee tawxid ba àggal nga fexe bu bañ koo firiwaat soo ko firiwaatee kon sa jaamu yàlla ak sa tawxid ji nga amoon lépp day yàqu ci riwaayab muslim xadis ma wax léegi buxaari moo ko solo ci riwaayab muslim daf ne ma min abdin qaala la ilaha illa allah thumma maata ala dalik illa daxala aljanna amul benn jaam buy wax la ilaha illa allah ju dëppoog charte yi ñu waxoon mooy xam ne li wax sax na ca di ko jëfe ah, summa maata ala dalik mu continuer ca loola ba dee fekk ko ca nee na amul kenn kuy def loolu lu dul àjjana mooy këram yal na ko yàlla def muy sun kër kon lii kat suñ ko xoolee ay alxuraan yi jàll ak xadiis yi daf nuy jox ne ah la budda min almuxaafadati ala aqidati la ilaha illa allah wa adami naqdiha binnawaqid wa hiya kasira daf ñuy jox ne danoo war a jéem a góorgóorlu ba bin amee laa ilaha illa allah nag ba xam ko bu nu dara jaral ci àdduna laa ilaha illa allah jooju nu koy firiwaat di jëf jenn jëf wala ñuy wax jenn jëf jenn wax joo xam ne day yàq sunu laa ilaha illa allah ndax kat su fekkoon ne mi ngi wax laa ilaha illa allah boole ko ak di woor ak di julli su ca raxee lenn lu koy yàq rek day yàpp masalan mi ngi wax laa ilaha illallah mi ngi woor mi ngi julli mi ngi def yi ko war yépp waaye gëm na ne am na beneen yonent bu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy ñëw gannaawam comme ñi gëmoon yonent bañ daan wax musaylima <coughs> wala ka doon woote ne yonent la ñi naan ko musaylimatul kadab ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jamonoy saxaaba yi su gëmee lu mel noonu boole ko ak laa ilaha illallah akuk julleem ak kooram ak asakaam yooyu yëpp amalu ko benn njariñ ndax firi na ko mi ngi mel ni ku jàpp sam jàpp ba àggal dem ca wana wa def loo xam ne day toj day toj am jàpp sam jàpp toj la jariñ mooy jàppiwaat su ne woon laa ilaha illallah ay junni yoon yu bari boole koog di julli di woor di joxe asaka di aji waaye suñ tuddee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu teg lu bon ci kaw ab deram ah wala muy reetaan sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala muy tuutal ña koy jëfe di leen def li ñuy wax yejji wala l'islam ci boppam mu koy xeeb wala mu koy tuutal wala mu koy ayibal kon itam laa ilaha illallah du ko jëriñ la muy mujj doon kooku mooy ab yéefar lay doon boo xam ne dafa tubbee ci tawxid dugg ci kéefar loolu moo tax ulamaul islam même ci téere fiq dangay gis ñi indi benn bunt boo xam ne dañ koy tudde baabu xukmil murtad bunt boo xam ne spécial ci ku tub bi lañ ko jëmale ki nekkoon ci biir tawxid ba mu yàgg tawxidam toj comme ni am njàpp di toje bunt boobu loolu rek moo ko tax a jóg kon loolu nit ñaa ngi koy jàng di ko romb xaw ma ndax ñi ngi koy bàyyi xelam ndéet waaye war nañoo yëg ne laa ilaha illallah am na yu koy toj yoo xam ne doomu aadama yi war nañ ko bàyyi xel war nañ ko wattandiku ndax di def saa boo xëyee wax ko ba mu bari lool saa boo gontee wax ko ba mu bari lool bu bëccëgee nga di ko wax taqale ko saw làmmiñ waaye saa boo ko waxee bala nga ko waxaat diggante bi nga def lu koy firi kooku sa laa ilaha illallah du ab jariñ kon faw bokkaale ji ñu wattandiku nekke noonu su fekkoon mi ngi wax laa ilaha illallah waaye weddi na loo xam ne dafa war weddi na warug julli wala weddi na ne asaka war na wala weddi na koor kooku amul wuute ci borom xam-xami lislaam ne kooku laa ilaha illallah mu wérut génn na lislaam ku tubbi la lépp loo xam ne dafa war te fés ba ñépp war koo xam ku weddi ak waram génn nga lislaam bu waxoon laa ilaha illallah ba noppi fekk yi nga xam ne yàlla daf koo daga daf koo xaraamal mu wax ne dagan na lu mel ne sàngara lu mel ne carte kooku boroom xam-xamu lislaam ci lu dul ñuy juyoo nee nañu su daganalee lu yàlla xaraamal kooku génn na lislaam donte ma ngay woor donte ma ngay julli doonte ma ngay wax laa ilaha illa ay junni yoon kon li tax ñu wax loolu mooy loolu day atte yu fis yoo xam ne képp ku di jullit wala ngay dund ci biir ay jullit xam nga ne yooyu ay atteem mooy nangam buñ ne julli nga xam ne kooku lu war la buñ ne sàngara nga xam ne kooku lu xaraam la buñ ne carte nga xam ne loolu lu la moo tax ku taxaw ne lu dagan la kooka su fekkee ku duggoon ca lislaam la kooka génn na sooy ba mu gaaw duggaat su fekkee nekk ci biir lislaam ñor na ko kot daal sax ca te bañ koo firi ba faatu fekk la ca ci yi wéral laa ilaha illallah ci la bokk bokk na nag ci li ci mënta ñàkk ci moom laa ilaha illallah pour mu wér maanaam taxqiq nag alshahada thaniya muy shahadat anna muhammadan rasulullah shahada laa ilaha illallah ngir mu mën a wér faaw bu ñu dolli ci shahadat anna muhammadan rasulullah ne muhammad ndawul yàlla la ab yonentam la shahadat anna muhammadan rasulullah nag mooy lan moo di al iqraaru bil lisaan wal iman bil qalb bi anna muhammad bni abdillahi alhaashimiy alqurashi rasulullahi ila jamici alxalqi min aljinni wal ins nga saxal ci saw làmmiñ fas ci sab xol ne muhammad moomee nga xam ne mooy doomi abdullah bokk ca banu haashim bokk ca giiru quraysh nga gëm ne ab yonent la bu yàlla yónni ci nit ak jinne loolu soo ko fasee sa shahadatu anna muhammadan rasulullah su fekkee wax nga ko ci saw làmmiñ mu dëppoog li ci sab xol sa ñaareelu shahada day daldi di awu yoon waaye nag bu awee yoon ba àggal moom it kat faaw mu am yu ci tegu ngir ñi xam ne wax nga dëgg bokk na ci nga fas ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa amul xaq ci li ñuy tudde ar-rububiyya amul ci nguurug yàlla gi moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci dara ndax mbindeef la du yàlla ñu xàmmee ko bu baax yonent bi alayhi salaatu wa salaam nit la koo xam ne moo gën ci nit ñi waaye du yàlla li nga xam ne moom la yàlla yeeyoo kenn waru koo jël di ko jox nit nit de su ko jaamu ñu xamee loolu kon sañoo fas ne moom yàlla la walla nga fas ne mu yeyoona lenn ci ak jaamu yàlla wala nga jàpp ne am na ay soppiku yu man a am ci jamono yoo xam ne mooy jékki-jékki muy taw wala muy xiin wala muy def nii loo xam ne ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ koy sàkkoo lu mel noonu da ngay fasaale ne yonent bi yeyowu ko xamal ne moom nit la qul innama ana basharum mislukum yuuxa ilay xam leen ne man bindeef laa comme yéen damaa yor aw yaram di lekk di naan di nelaw di feebar di faatu kon nit la waaye li ko tàqaleeg yéen mooy yuuxa ilay dañu may wax yu sun borom tabaraka wa day wàcce ci moom loo xam ne wàccewu ko ci ña ca def ngir mu jot li leen ko tànn ko it nag ca fa gën muy ka gën kon kooka mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag bokkut ak yàlla lenn yàlla moom keneen la koo xam ne kenn la ku dul moom rek doo moom lam yayoo it buñ ko jaawale di ko jox keneen ndax lool ci li yàq tawxid ci la bokk kon loolu bokk na ci sa shahaada boobu wér kon kooku daal abdun la yubad wa rasulun la yukdab ab jaam la boo xam ne kenn du ko jaamu waaye ab yonent la boo xam ne kenn waru koo weddi lam indi rek moo wér te moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam lii may wax na nga xam ne ci yonent bi la aju keneen taxut ñuy wax ndax ku dul moom moo la gën su fekkee yi yàlla yeyoo moom yeyoowu ci dara kon keneen ku dul moom taxut ñuy wax muy malaaka wala muy jinne wala muy lum mën a doon moo xam wàllu lii nga ko tuddee wala saalix wala nit ku baax wala noo ko mën a tuddee nu mu mën a doon yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yeyoowut keneen taxul ñuy wax te kat boobu bu fekkee njariñ ak lor njariñ ak lor yi dal doomu aadama yi moom yoru ci dara kumpa gi nga xam ne mooy kumpa gi suñu borom tabaraka wa taala jël garde ko joxu ko ko xamu ci dara sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla ne ko qul laa aqulu lakum indi xazainu llah wala alamu alxayb wala aqulu lakum inni malak in attabiu illa ma yuxa ilay kooku daf laa waxal ne moom man maay kan yàlla daf koo digal ne ko waxal waxal ne man dey yoruma magasin yi yàlla yi ba ku ma bëgg mu bari le mu bari le ku ma bëgg mu ñàkkit mu ñàkk yàlla nee na ko wax leen loolu soo leen waxee ba noppi nee leen wala alamul xayb xawma kumpa lii ñëw suba yàllaa ko xam nee na ko it nee leen duma malaaka ndax ñu xam li nga doon ñu xam ne nit nga wala aqulu lakum inni malak duma ne leen malaayika laa mukk man daal in attabiu illa ma yuha ilay duma topp lu dul li nga xam ne moom lañ wàccee ci man rek ci wax yu suñ wàccee ci man daal ne ma mu ngoog danaa ko jëfe danaa ko jot li ngeen jëfe ko bu sama mbir jeexee ma jóge fi bàyyi leen ak li yàlla wàccee ci man kon kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bañ koo jaawale ak ak yàlla yàlla waxaat na ko ne ko qul laa amliku li nafsi nafan wala darran illa ma sha allah walaw kuntu alamu alxayba lastakthartu min alxayri wa ma massani assuu in ana illa nadirun wa bashirun li qawmin yuminuun nee na ko nee leen man day yoraluma sama bopp njariñ ak lor wax ko bañ dëgg ko lu dul dafa soob yàlla yàlla rek moo yor njariñ ak lor nee leen itam man xawma kumpa xawma lii ñëw te dikkagut xanaa luñ ma ci wax yu rek lu ci wàcc daal ne ma bu ëllëgee nangam ak nangam ak nangam mooy xew loolu danaa ko xam waaye ñu ma ci waxul du ma ko xam su fekkoon ne xam naa kumpa xam lay ñëw nee na kon danaa mën a xam lu gën a yomb loolu wala lu ko gën mu di kon da ngeen ma gis ma bokk ci ñi bari alal danaa mën a bari alal ndax kon danaa mën a euh, am nu ma jëflanteeg ka ma xamal kumpa ba alali àdduna ma man koo bari le te it kon menn mbir mu ñaaw duma ma dal maanaam aw métit xam ngeen yonente bi sallallahu alayhi wasallam da doon dund ay métit di ko dal yi dal ñëpp wa ma massaniya su mu ne leen daal in ana illa nadirun wa bashirun li qawmin yuminuun man daal li ma tax a jóg mooy kuy xuppe kuy bégale rek laa ku ma topp ma bégal la ci àjjana ku ma moy ma xuppale ci sawara képp koo xam ne gëm nga ma jottali la loolu mooy sama itte boo xoolee da nga gis ne ñaari aay yooyu ak yeneen yu demee ne moom benn bu ci ne sunu borom tabaraka wa taala buy wax ak ab yonentam da koy wax xul wax leen kon kooku dana nu jariñ ne jaadu na ci jëpp doomu aadama yoo xam ne ay doomi aadama wëlbatiku nañ delsi ci yow moo xam dañuy xamlu moo xam luñ la mën a jàppe waaye diine tax ñu dellusi ci yow nga gis ñuy bëgg a jéggi dayo ci sa mbir wa wax jot na bu boobaa qul joojee yàlla waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa suñ la bëggee jaawaleeg yàlla ci lenn daal nay doon lu war ci yow ci la gën a gaaw nga daal leen di yëgal ne man njariñ ak yoruma ko te it kumpa bu ngeen defee ne xam naa ko xaw ma ko doomu aadama laa li ma leen tane mooy xëy na dama leen a tane ci wàllu xam-xam su ngeen dikkee ma jàngal leen loolu rek laa leen mënal waaye mënalu ma leneen kooku day daal di war ci képp koo xam ne mbooloo ngi koy jublu si loolu doon taxawaayam ci digganteem ak mbooloo moom rawatina su gisee ñuy bëgg a jéggi dayoo nag ci mbiram su dul lool rek mbir lënt mu di danañ dem ba fekk mbindeef mu dul ab yonent ñu jaawale kook ak yonent wala ñu dem ba jaawale ko ak yàlla wala ñu dem ba seeni xel jaxasoo ñu jaawale yonent ak yàlla duutuñu xàmmee yooyu am nay doomu adama yoo xam ne boo ne leen yoon tuddaloon yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak këñ gëm di ko topp ne leen yooyu noo leen toftalee da ngay gis ñenn ña dañ lay wax yonent bi door caa yàlla yàlla door caa teg këñ gëm nga gis ñoo xam ne këñ gëm rek lañ lay wax sax yem ci far kooku laa xam xawma keneen mu jeex kon loolu lim lay indil mooy bopp yoo xam ne dafa jaxasoo nit ñi nañu delloosiwaat seeni xel doomu aadama yi doyewuñ leen dara mbooloo mu bari mi amul solo amul njariñ te àdduna lu gàtt la kat te day jeex sun borom tabaraka wa taala kenn ku nekk war a taxaw nag fi kanamam mu di la laaj nam doon laaje yonentam ya ah, laaj la yow responsabilité bii ñu la yanoon mbooloo mi toppoon ci yow di la déglu loo leen wax ana loo leen jàngal ci sama diine ji ba nga gisee ñuy jàdd ba nga gisee ñuy bokkaale lan moo doonoon sa taxawaay ndax waxoon nga leen wax ju leer ndax tere woon nga leen ko laaj yoo xam ne diggante nit ka lay doon ak boroomam loolu jëmm ju nekk te yor benn responsabilité lu mu tuuti tuuti ak lu mu rëy rëy war nga ko bàyyi xel yëg ne bis la boo xam ne day ñëw te kat du jaas in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda kenn ku nekk bis a ngi ñëw boo xam ne da nga ñëw ba taxaw fi sa kanam boroom yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne kenn ku nekk yàlla dana wéet ak moom di ko laaj mu ne da ngay xool sa ndeyjoor doo gis lu dul la nga jëfoon nga xool sa càmmooñ doo gis lu dul la nga jëfoon nga xool sa kanam seen sawara muy tàkk kon bisa ngoog boo xam ne bis bu mat a bàyyi xel la bis bu mat a tiite la mooy bis boo xam ne ni ko borom bi tabaraka wa taala waxe yawma yafirru al mar'u min axiihi ka doon sa mbokk gën laa jege bu boobaa da nga koy daw wa ummihi day daw yaayam wa abihi day daw baayam wa banihi ak xeetam ak ay mbokkam ak ay doomam du bàyyi kenn ah la ko waral mooy li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni kenn ku nekk da am lu la doy sëkk sëkk sëkk ba tëloo keneen kon bis boobu ku àdduna fat bi ba bàyyiwoo ko xel yaa ngi perte te yëgoo ko yaa ngi perte kon lu ba ta bàyyi xel la kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir nit ki seede ne mooy yonentub yàlla faw am na ay mbir yu ko war mbir yooya yépp day dellu ci fan ngay jaar nag yow ba topp ko ndax bul fàtte ni kat biñ ko yebalee ci yow dafa ñëw ngir gindi la gindi gi mooy lan mooy nanga def na ko topp moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci gàttal topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy say jaamu yàlla na dëppoo ak sunna